tabarakallah maa yaram muy tànn bu baax tànn nga ko xam nga tànn nañ nekk ci waa moom kay ñu ngi doon wax sax kuréel bi ñuy kuréel bi ñuy taxaw nga xool ñaar ci gone yi bokk ci kuréel bi. ñu war a doon ñaar fukki juróom-ñett. waaw ñu bëgg rek ñu ko defee. taxaw. Mm-hmm. kuréel bi nag daa fekkoon ñu xalaat. waaw oh, daa dajee daa dajee xilaafa gi rek. waaw dëgg naa ko dëgg naa si dara rek. waaw loolu daa dajee xilaafa gi. waaw tabarakallah. ñëpp rafetlu na ko. waaw. Euh, wax dëgg yàlla. dégg yëpp dégg. Mm-hmm. ñun rafetlu nañ ko ci am na am na ñu bëri. rafetlu nañ ko ci man ko xam na man nga ko. rafetlu nañ ko it ci féete gu mu féete woon ak sooy jur. waaw loolu loolu kenn umpale wu ko. waaw su ma dégg seen ban ki démb rek tey laa koy nettali. ma ne ren doomi Cerno yi. doomi Ceerno yëpp ci moom laa gis ci suñ xarit laa gis ku ku ku Serigne Ousmane jox sayaara. ndeysaan waaw ma ne ko <laughs> ci moom. waaw ci ku Serigne Ousmane jox oto. waaw doomi Ceerno yëpp du sëñ Modou Ball du sëñ Abdou Khoudous mii rek la ci Serigne sa jox oto. xam nga loolu kon nag kon daa am lu muy tekki. dëgg la boo wane ñoom Mor Diouf. waaw ak euh, góor gi sant si sa dëkk dëkk bi ñoom sax nan nan. kii euh, Materne. Materne Ndiaye Materne Cissé. Materne Cissé. waaw moom moom Materne Cissé moomu. waaw moom a njëkk a tuddee turandoo. dañoo sànni daanaka maguma ko. dañoo dañoo si càmm. Hmm. man sëñ bi càmm li man dem. xalaatoo ba ñu julli tuuti càmm la ak boo ñuy jëm ngi tuuti fii ci seetu diwaan. waaw. léegi ba jant so hmm. ma dox sama tànk ñëw hmm. te suba ma ñëw ne ko liggéey ba àgg na hmm. fa la fekk ñu bari waaye dama guddi waaye dama guddi mu nekk ci teew yi oto <laughs> <laughs> ñu teew loolu nag lu moom moom ko ma sax dafa ba tey ànd itam mu ne ma demal tuddal ma jiw def na ko àllaaji dow ànd nan ko ba war a jógee euh, si ñëw fii ci Pikine mm-hmm. am am tudd mm-hmm. mu ne leen mu ne moom ci boppam mm-hmm. moo tudd xel ba moom sëñ bi ñaari xar yi ñu doon rey mu ne woon xar yi lottal leen ba mu noppee mu ne ko am nga lool néew ma nit waaye du yomb am am tudd loolu ñaari xar yi lottal doon ceerno ren loolu yow na <laughs> ko laat <laughs> ñu doon nopp allah ji doog a ci am dal waaw kon nag tànk yi da nga koy rafetlu. waaw di ñaan itam cër bi ñu la sédd te nga yeyoo ko. Mm. <laughs> yàlla suñu waroon jàppale la ci. amiin amiin ba jox la ko ñu am ci lu kawe sa njox suñu njox. léegi ñëpp yaakaar na ko. nit ñi ñu ngi lay ñaanal yàlla may fan gudd ak wér. ndax euh, tànk yu rafet yi ngay dox. Mm. di ko wax. Mm. ñëpp ko rafetlu ci dëkk bi. dëgg la te itam lii ñu la dénk de. ñëpp ko yéen. waaye ñu ëpp. un kilomètre. ndax man de képp ku ma ci dégg waxtaan ci ak moom. Hmm. xolam sedd na ci ñaar ba léegi. Hmm. bi bi bi ngay woote. Hmm. ñu ma toogal di garab bi noonu lañ toog ñu doog a rafetlu. yàlla na ci yàlla jàppale ci barke borom daal ba lu ci séentu ba dénk la ko. nga am ci la ko kawe. jërëjëf barke borom daal bi. xool sedd na bu baax man. waaw waaw. kon may eggale ak moom.